mbokku Kaolack asalaamualeykum mbokku Saloum ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp ku nekk ci turam ak santam gis nañu une mobilisation exceptionnelle may nuyu sama magu bopp sama xarit sama kilifa Serigne Moussa Mbacké naawel ak waa kër Serigne Bassirou gis naa seen taxawaay gis naa seen teeru gis naa seen pasteef te loolu bettu ci yéen may nuyu bu kilifa diine yi nekk fii yëpp ci tundu Saalum wi di nuyu Baye Niass ak njabootu Baye Niass gépp ak xalifu général des Niassène di gërëm bu baax di leen sant dama am benn mbokk ca Nigéria ñu tase mu ne ma diplomatie Sénégal waroon na fee gën a dëgër ci jëflante ak waa Afrique parce que mag ñu baax ñi nekk ci Sénégal seen liggéey ëmb na Afrique ëmb na àddina bi ba nga xam ni Sénégal waroon na am

te bokk na ci disciple yoyu ay kilifa yu mag yo xamni ay chef d'état ak ay organisation internationale dañ leen di xëccio à chaque fois que mu am ay conflit au niveau du continent africain donc sac bu ré nonu suñu kilifa diiné yi ak suñu mag ñu baax ñi liggéeyal ñu ko na ci programme bi ñu taxawal ñu jëfandikoo ko jëfandikoo influence boobu ci diplomatie Sénégal fii nga xam ne nag mooy xolu bassin arachidier danaa fi wax ñaari baat ci mbay mi ndax dama fee ñëw wër ko ba mu daj baykat yi ma daje ak ñoom ñu ne ma li njëkk ci suñu itte daal mooy bu ñu bayee ba pare ak coono bi ci nekk def ci li ñu man lépp daal ñu mën a jënd mbay mi te bañ ñoo jox ay bon impayé donc koñ bi njëkk ci suñu programme pour defar mbayum Sénégal mooy commercialisation bi ñu garantir ko ba nga xam ni képp ku bayati la nga bay du des ci say loxo te boo ko jaayee ñu jox la sa alal nga dem kenn du la jox ay bon MP ñaareel bi muy matériel agricole bu doy sëkk ak semence yu doy sëkk loolu mooy xolu programme agricole bi nga xam tabax nañu ko ñu faram fàcce ko ci document bi ñu leen génneel ñetteel bi ma bëgg wax ñaari baat ci wàllu transport wàllu transport yamul rek ci défar ay tali suñu mbokk chauffeur yi suñu mbokk apprenti yi tracasserie yi ñu leen di teg ci tali bi ak gare routière yi bu ñu sañoon le 24 février 2019 ñu dakkal ko incha allah ma leen di jox engagement lépp lu ñuy dogal ci secteur bi dinañu ko seq ak ñoom waxtaan ba nga xam ni benn tracasserie ak benn coono dootu ci am ndax économie maanaam koom-koomu réew transport daf cee am cër bu mat sëkk ndax liggéeykat buy jóge ci bërëb jëm ci bërëb chauffeur lay yóbbu marchandise mu ñuy jële ci bërëb jëme ci bërëb chauffeur a ko fay yóbbu wala kuy dawal saxaar may wax ne coalition bi nga xam ni taxawal nañu ko ngeen gis sama mag bop ci politique ca PDS ba di président Pape Diop président de la République du Sénégal ngeen gis ci Adibou Soumaré premier ministre ancien président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine to ñu ñëw ci coalition bi gis suñuy rak ñom Thierno Bokum capitaine djey Capitaine ñep ñongi ci biir coalition bi gis naa seen taxawaay gis mobilisation Gisna naa Nous mi ñu leen di sante di len La coalition bi mënuñu ko lim puisque il y a plus de 100 organisations aujourd'hui dans cette coalition lolu motax fu ma fi jaar population yi benn wax la ñu may wax mooy ñun daal duñu ci deux tours duñu ci trois tours premier tour daal ñu régler problème bi incha allah vraiment sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp Après le centre, le candidat Idriss de la coalition IDI 2019 est attendu dans la zone sud du pays ce 7 février. Il sera notamment à Oussouy, à cap à Ziguinchor, à Goudamp, à Tanaf, à Kolda. Un meeting à Simandi, à Brassou est aussi au programme. Cher à présent, euh, les activités du candidat Ousmane Sonko de la coalition Sonko à président. Sa caravane s'est arrêtée à Kungel et à Kafrine. Et pour, euh, donc, c'était pour des meetings, les temps forts tout de suite. leader dafa am solo man nag tàllal naa leen sama loxo nee naa leen su ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu duñ leen musa wax lu dul dëgg duñu musa a trahir li nga xam ne mooy intérêt Sénégal jiital intérêt keneen dugguñu ci politique pour am ci fukki dërëm yaakaaruma dara luy jóge ci politique lépp li nga xam ne tey ñu ngi koy utiliser pour corrompre nit ñi bi ci jiitu mooy li ñuy wax fonds politique 8 milliards ñu voté ko jox ko Macky Sall mu ci def lu ko neex di may ko neex loolu lañuy ñuy supprimer ci réew mi. vous la jeunesse xam leen ni 2019 bi c'est votre avenir qui se joue aduna yépp a ngi teg bët suñu réew teg bët suñu alal rawatina pétrole gaz zircon phosphate ak yeneen ak yeneen. suñu suuf bi ñuy bayee sax aduna yépp a ngi ciy teg bët parce que tubaab bi amatuñu suuf suñu bayee waaye dañuy ñëw ci suñu dëkk yi ne nañ leen jox suuf si. loolu nag mooy xeex bi pour 2019 na ngeen tànn ku loxoom set wicc na ngeen tànn koo xam ne am na compétence mooy liñ ko doyee mat na ko waaye na ngeen tànn it na ngeen tànn koo xam ne patriote la intérêt réew mi la jiital te amul benn complexe du ci tubaab du ci chinois du ci arabe du ci kenn parce que ñun dañoo war a am dignité suñuy maam dañoo xeex ba sonn ñii xeex nañu ak armes yi ñii xeex nañ ci diina gi pour ñu bañ ñu noot ñu ñoom ñu ñëw jëlaat suñu réew delloo ko tubaab yi ñu noot ñu. loolu mooy enjeu 2019 bi dem leen jël carte électeurs yi parce que am na carte yu nekk ba léegi ci commission yi bu ngeen ko jëlee ba pare dem leen massivement ngeen dem voter rawatina yéen jeunes yi parce que jeunes yi suñu buggee changement am yéen yéenay 65 pour cent de l'électorat bis bu ngeen génnee massivement voter mbir mi jeex. Macky Sall ak li mu représenté yëpp ak ni mu sàgganee sénégalais yi ñàkk yéeg sénégalais yi ak ni ñu jëlee suñu alalu réew détourné ko séddoo ko diggante ay famille ak ay ñi ñu bokkal politique ak ni mu détourné suñu justice di ci régler ay compte jàpp ay politiciens parce que d'accord maak yow nga tëj ko kaso ñii mu génne leen ci réew mi par force régime Macky Sall nga xam ne lajj na ba tey ndaw ñi amuñu liggéey hôpitaux doxatuñu école publique doxatul je suis très fier d'être le candidat de la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui constitue le présent et l'avenir du pays. Et cette jeunesse-là ne peut pas se reconnaître en des octogénaires ils ne sont même pas le futur du pays parce que jox une chance de faire des choses. Nous avons une campagne bi dañoo jaaxle dañoo tiit dañoo affolé dafa mel ni Pastef rek wala coalition Sonko président rek moo fi nekk comme opposition ay weer ngi nii bis bu ne nga dégg li ma tuddee woon jëfur national li muy wane rek mooy affolement waaye su yemoon ci agression verbale ak sosalaate ak di essayer tilimal deru nit sax ba léegi mu baax waaye gis ngeen li ci gën a yéeme mooy léegi agression physique démb ngeen gis ñu def ndar attaqué suñuy militan ak ay jaasi may wax nag ni Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar dañoo juum parce que bu ñu defee li ñuy def ba pare dañuy gaawantu yor seen làmmiñ gu rëy naan dañuy victimiser wuñu ñun duñu ay tapet tapet mooy victimisé ñun duñu ragal parce que Macky Sall ni ñu doxaleek moom juróomi at yi amuñu dara lu ne suñu gannaaw yoruñu état wéeruñu ci kenn te bis bu nañu taxaw jàkkaarlook moom ne ko càcc bi nekk ci réew mi te ngeen koy def ñu ngi koy dénoncé kooku ragal du ko def ñoo ngi lancé un appel au forces de défense et de sécurité

nous nak duñu ay yafus yo xam dinañ tok di xolé bàyyi nit ñew dal suñu kaw gaañ ñu wala ray suñu nit ñu tok di sétane ñu ngi lancer un appel aux autorités religieuses de ce pays parce que Macky Sall ñoko ëpp ay jeunes téeméeri junni yoon te suñuy jeune ko ëpp détermination fouf parce que kenn du leen jox 2500 pour ñu défendre sen dignité ak sen honneur. Voilà, le candidat Ousmane Sonko de la coalition Sonko président. Ce 7 février, il est attendu dans la région de Louga, à Linger, à Dara et à Louga, avec à chaque étape une caravane suivie de meetings. On va voir euh, le programme de la coalition Madike euh, 2019 du candidat Madike Nyan. Il avait euh, au menu une marche et une déclaration. C'était à Wurosogi, à Matam et à Canel. Madické Niang président moom la ñu gëm Madické Niang président moom la ñu wax Madické Niang président moom la ñu gëm Madické Niang fenk na dañu doon xaar beew na dañu doon xaar agsi na 2019 falu rek falu rek Madické Niang président moom la ñu wax Madické Niang président moom la ñu gëm Madické Niang président moom la ñu wax Madické Niang président moom lañ gëm Madické 2019 PDS bi programme bi leer

J'ai commencé par Worosogi, puis par Batam. Me voilà aujourd'hui à Canel. J'ai mal. Pourquoi Parce que simplement, celui que vous avez considéré comme étant votre fils n'a rien fait pour le Fouta. le Fouta continue de vivre des moments difficiles. Il y a un retard d'urbanisation. L'assainissement est absent dans toutes les zones. Les routes sont difficiles. Elles sont caoteuses. Où est Macky Sall qui se déclare comme fils du Fouta Moi, Madi Kenya, je m'engage à régler les problèmes du Fouta. Dans mon programme Gamme à j'ai aujourd'hui toutes les solutions pour régler le problème du retard de développement qui existe dans les zones que j'ai visitées. Pour cela, j'ai décidé de mettre en place une dotation spéciale qui va accompagner les, les communes du Fouta. Nous réglerons tous les problèmes relativement à la question de l'assainissement, à la question de l'accès aux services sociaux de base, à la question des infrastructures dans le domaine de la santé, mais aussi la question impérieuse de trouver du travail aux jeunes et aux femmes du Fouta. Après avoir parcouru Canel, je vous dis que je suis triste on vous a oublié dans la répartition des richesses générées par le pays. C'est pourquoi dans mon programme, je préconise l'équité dans la répartition des ressources que Dieu a gratifié le Sénégal. Mangleni nuyu di Macky Sall bi noo wooye doomu Fuuta defu fi dara fas yéene naa ñëw faj problème mu Fuuta danaa leen wutal ndox wutal leen courant wutal leen ay dispensaire ay centre de santé yu doy danaa fi def ay unité de transformation yoo xam ni xale yi daan ci liggéey jàpp bu baax ci élevage bi waye sama xel aussi mi ngi dem sen dom yi nga xam dañu nek bitim rew le fonds d'appui au Sénégalais de l'extérieur ma def banque nationale nous sunu mbok Sénégalais de l'extérieur sen un projet un problème de sécurité sociale bi nu am si rew yu bari dana fexe ba waxtaan ak ba du ñu ñàkk seeni droit danaa créer benn société de transfert bu mag lépp lu fa jóge mbirum sénégalais de l'extérieur lay régler lan lay régler mooy seen dëkkuwaay développer seeni village képp ku bëgg Faut fond bi jàppale la ba nga mën ñibbisi yàlla may nanu ñu am xam-xam bu nu man jël jëriñe si Sénégal ñun dañu bëgg jëriñ Sénégal fa yéene benn yoon di jëriñoo Sénégal Macky Sall dafa jëriñoo Fuuta bëggamu ko day ñëw di leen wax seen mbokk la seen doom la te defaru leen dara loolu nax jaaduwul kon li si des mooy ma naqarul li xew Ndar barke demb ay militant wu Sonko dañ len attaquer gañ len lolou rafetul ma ngi ñaan procureur di ñaan autorité judiciaire yi nanu jug taxaw ñi jëf jëf ju ñaaw joju ñu japp len yoon après avoir fait le tour de canel je vous demande de soutenir mon programme Jàmm ak Xéewal Nadem, Nadem, Nadem. dem Nous restons avec le candidat Madi Kenyan de la coalition euh, Madiké 2019. Dans son agenda de ce 7 février, une visite auprès des chefs religieux de Tamba Kunda, euh, meeting à Kedugu et à Salemata. menu également une marche dénommée Djam Ak Cher après euh, le sud-est, le candidat Madi Kenyan est attendu dans la région de Kolda pour un meeting à Kolda, même également à Velingara. Euh, place aux, activités du candidat Macky Sall de Beno Bokuyakar au nord du pays. Meeting et caravanes ont ponctué les étapes de euh, Saint-Louis, de Richard Toll, de Dagana et à Podor. Les temps forts tout de suite. nous Richard Toll renforcer l'aménagement des périmètres irrigués dans tout le département de Dagana. Déjà, a enveloppe de 177 milliards pour renforcement de capacités de production et de stockage le ñuy dund li ñuy dund le Sénégal est en marche le Wallo est en train de devenir le grenier du Sénégal la compagnie sucrière sénégalaise créatrice d'emplois ici à Richard et dans le Wallo, kon lépp lu ñu mën a def pour jàppale compagnie capacité nous ko le pont de Rosso président la république islamique de Mauritanie sama doomu Mohamed Ould Abdel bi may nuyu d'accord na ak man am alal dem def nañu appel d'offre la route Saint-Louis Rosso Richard Toll qui aujourd'hui est à Ndioum et Chilon qui va poursuivre son chemin vers Ourossogui Matam Kanel Bakel pour rejoindre Kidira et Tambacounda, cette boucle est déjà bouclée. Bandirabe Walo, Bandirabe Sénégal, mi Kim sanni hande e et mon. mi mobilisation mon. on jaɓɓi mami no don et e Dagana danaa leen andil Promoville pour ay parce que tali yi fi amoon yëpp yàqu nañu fii li ma fi gis dal Dagana a voté à 100 pour le maintien du plan Sénégal émergent le 24 février à 18 h j'écouterai à travers les ondes et la télévision les excellents résultats du département de Podor. le 2012 mais e e milliards destinés à des projets pour la zone de Podor à travers les infrastructures de franchissement Ndjoum Bakel dans sa section Ndioum Goléré est en cours de construction pour 69 km pour 22,9 milliards de francs accompagné d'un programme de 32 km de pistes rurales. Nous sommes en train de construire le pont de Nyanga-Edi. Nous avons, en matière d'électrification, mis en place une dorsale de 52 villages, dont 20 nouvelles localités, surtout dans la partie enclavée de l'île Morphine. J'ai un programme de 2800 localités au-delà de votre département et de la région. Les revendications qui datent de plus de 70 ans ont trouvé des réponses pertinentes avec le vaste programme de désenclavement du département de Podor. Aïsada, Adjara à Sabou Ari. Voilà, c'était le candidat Macky Sall de la coalition Benno Bokyakar. Ce 7 février, il sera en meeting à Canel, à Bakel, à Kidira et à Goudiri. On va à présent on va passer au dernier candidat ce soir. Il s'agit de El Haj Sall du PUR entre visite, caravane et meeting sur l'axe Mbour-Tataguine suñu borom bés bu ma joxee nguur Dina dinaa fexe def ko ci njub ak ci charte réew muy constitution bi fas yéene naa ko respecté dinaa fexe ba réew mi am jàmm yi yenu réew mi yi muy pouvoir exécutif bi ak pouvoir législatif bi ak pouvoir judiciaire bi dina fexe bi équilibré ko alalu réew mi na yéene naa koy ci ak njub ak ci ak léral miru ger ak miru mbuxum fas mu génn Sénégal aday ak cosaan yi fas ko saxal

dem ci région yépp seet nan lañu war a jiitee réew mi ñu koy wax assise nationale man mii dama ko signé comme nag dama ko signé engagé na ma te dinaa ko topp réew yi nga xam ne ñooñu séq ñu commencé ko ci Gambie Mauritanie Guinée Guinée Bissau ak yeneen dinaa fexe ba ñu am diggante bu ratax njàng nag duma ci fa benn yoon parce que mooy développer réew ci loolu dama ne département bu nekk dinaa fa fexe samp université de proximité xam naa ne ci fan yi loolu dinaa leen ko faram fàcceel dama ne 45 département yi bu ci nek dina am hôpital bu mucc ayib ak plateau technique bu équipé fan yi ñew bu ma jëlee volet santé dina len ko faram fàcceel fas na nit dootul juddu ñàkk kayitu juddu bo juddo ca saa dañ la war a defal kayitu juddu mbiru xalé yi ci senam xey fas yéene cee taxaw bari na fay ligéyu kay ñu leen di wax agence fas yéene leen dindi ministre fi nek té ki di président la république am ci lu upp juróom-ñett fukk man dina fexé be diñu upp ñaar fukk secteur privé national bi dinaa fexe ba saafonteeg ñoom dooloo leen be nga xamné ñom ñoy ñooy suñu économie li upp ci sama priorité sécurité qui la bokk Madame kaare nga réew ci biir dinañu ba document muy Kéti judu. muy permis de construire ak permis de conduire ak lenen, ak lenen, ak am du mat dem di dématérialisation war nga ko mën a tiireel sa bopp dem ci ko ko war a signé nga jox ko ko mu taxaw signal la ko mbiru recherche mbiru innovation ak affaire technologie nga xam ne xarala yi yi ordinateur di liggéey dinaa fekk ba saxal ko ci réew mi sama mebet mooy waa Sénégal am koom ba nga xam ne lu ñu bëgg a jënd dinañ ko mën jënd ñu koy wax augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais dialogue nag Sénégal la fekk baax dialogue social bi dinaa ko renforcer pour grève yi wàññeeku démocratie Sénégal xam ngeen ne sooxe na fii mu nekk ñu ngi naan carte électeur joxe nañ ko wala joxewuñu ko ñu ngi naan fichier bi baax na wala baaxul dinaa taxaw ci teg démocratie ci yoon suñu làkku réew yi muy joolaa di pël di séeréer di mandeng di tukuleer di wolof di soninke ak yeneen yuy ñëw dinañu dugal ci école yi fexe ba mu am ci doole bu baax a baax defe naa am na sax firnde bu ma ci wane bu ngeen dégloo sama enregistrement bu njëkk bi nuyu naa waa Sénégal yépp ci seeni làkk àddina bi nag ku déggul anglais mënoo koo liir mënoo ko jëfandikoo Nous sommes en français c'est langue officielle wante réew bu ñu ko jëlé dañu anglais système éducatif bi maternelle lañ koy commencé té duñu ko bayé baccalauréat wax la nel dama baccalauréat général dama fas réformer ko cette réforme principale, c'est que sept curriculaires sont préparés pour une série de baccalauréats. ce que je veux faire. C'est pour les enfants, j'ai une philosophie, j'ai une lettre, j'ai une mathématique, j'ai une science, j'ai une technologie. Ce que j'ai fait, lima mujjé moy li njëkk bo sétlo ku mujj a wax ki nga xamné ne jombul nit ñi dañu défé né mom mo wara donc lii ma man muy le ëpp solo ci sama profession de foi bi moy agriculture ak élevage ak pêche ak artisanat Après Luxembourg-Tateguine, la caravane du candidat El Haj Sall du Parti de l'Unité du Rassemblement va sillonner euh, ces localités que je vais énumérer. Il s'agit de Caronne, Mirkilan, Boulel, Djankesouf, Malem Odar, Djokoul, Bouk Et la caravane va s'arrêter à Kafrine pour un meeting. Voilà euh, pour ce soir, cher Traoré. Merci Oumou, c'est tout pour ce soir donc, mais on va se retrouver demain pour le cinquième numéro du journal de la campagne. Merci d'avoir euh, suivi, passé d'excellents moments sur la